Janko ak Sukay nekk na benn diggante bu yàgg nag benn diggante boo xam ni yow bu dee da ngaa dese comprendre mën ngaa wax ni ah way Ñanko mii daal mu toppee Sukay ba neexu boppam kase moo tax mu topp ko pourtant noonu la demee mais pourtant demeewul noonu parce que nag gars yi da ngeen di fàttali ko commencement ba commencement ba Sukay métti woon na commencement ba Sukay lu mu doon dund dafa métti. parce que ah adduna li si gën métti mooy nga ñàkk yaay ñàkk baay ah gisoo kenn koo xam ne mën na laa taxaw te boobaa njànkoo moo doon taxaw su kay ginnaaw ba nga xam ne su kay gisoo kenn ku ko taxaw ah du kenn du mbokk du yaay du papa du kenn ku loolu njànkoo kese moo ko doon foog teese si bandi yi bandi yi nga xam ni su ngeen bàyyi woon ak su kay kon ba tey kenn waxatu ko te boobaa mën na see ñàkk bakkanam mais mm, njànko ak su kay ñuy dund njànko di ko protéger ñu xëy ba benn bés su kay ne ko dama bëgg nga bàyyi ma dama bëgg nga bàyyi ma nag ndax ak benn góor muy Pape Demba benn góor boo xam ne yow doo comprendre quoi mais nag su kay ndax nii mu def ndax yéen ànd ngeen si ndax ñu ànd nañ si mais mën nañoo wax ni ànd nañ si mais ànd ñu si parce que bu dee ànd ñu si mooy xam ngeen ni nag njànko ah su kay dese naa jaadu mooy jàpp ko di ko toroxal saa bu mu bëggee bànneexu boppam ñësu su kay di ko utiliser mais ndax and ñu si mooy danga ngeen di fàttaliku nag su kay ba mu nekkee xale bu ndaw gisul kenn kenn kenn amul kenn ku ko protéger jànko moo jug ah daal di koy protéger nag ba nag ah, te du gis ngeen nag bii passé bii passé bii passé ah bii passé bii passé ah njàng bu doon nekkul fa su kay mën nañ ko faa def jëf ju ñaaw waaw su kay mën nañ kaa faa def jëf ju ñaaw ak beneen nijaay woon ko waaw waaw bëgg koo foowee daal mais njàng ko ñuul daal koy protéger te bu doon def koo bàyyi kooku mën na koo foowee te boobaa mën na yaakaar àddunaam waaw waaw njàng ko daal moom li leen mën a wax protéger na su koy fépp fépp fépp fépp mais ni mu koy def tamit moo desee nekk yoon parce que jigéen mën nañoo wax ne ñoom ñëpp yam jigéen moom ko siy teg ab coono ko jigéen ko si méttital bis su ñëwee ah di nga ko ñàkk di ko ñàkk te nag njàng bi dafa nekk si yoonu ñàkk su koy parce que méttit yim koy teg quoi